Idrissa Seck muy yox yoxi Yankhoba Diattara mu teg lu leer loolay ubbi li nga xam ni mooy yëglekaay yi nga xam ni daanaka yu bari tey ci ñoom loolu ñëw ku ci mel ne yor yor la sële yéenekaay ak direct news Walfadjri ak l'observateur ginnaaw bu ngeen demee frère bi Seydina Mouhamad baa ngoogu Khalifa Touré euh, sopp na euh, ginnaaw ba ngeen caxat a euh, yére yi nga xam ne ak tisi yi ak geesneer yu mucc ayib yi nga xam ne andi woon na ko fële fa fere fereñ ngeen njëkkante ko daal di koy rajaxe jël lépp nduggi waat na dell kaar masàllaa ci bagage yoo xam ni ngeen gis ko noonu façon bagage bu ne muy tisi jeesneer wala robb wala li nga xam ne moo nekk borode bépp xeetu yére bu ngeen xam ne am ngeen ko mën ngeen a dem foofu mu jaay leen ko ci 77 767 84 44 Xooba Jatara moo nekk ci xëtum yëglekaay bi nga xam ne mooy direct news moom li mu xamle mooy Idrissa Seck lépp lu mu bëgg ci moom papaam la daf koy mën a am kon daanaka bopp bi la soxla jox na ko jëbbal na ko boppam lépp loole kàddu yi nga xam ni kii di Yankhoba Diattara jox na ko mentoram yor yor nag moom dafa ñëw ci avocat yi nga xam ne daanaka ña ngay araftu li nga xam ne mooy euh, état bi ak parquet bi nga xam ne daanaka fintoon nii am na lu ñuy njort loo xam ne loole bëgg nu mu ëgg si benn yoon moo tax o ki nga xam ne mooy Bamba Cissé ak i nanoo def a conférence de presse yuuxu nag ca ba ngay amul làmmañ woo yuuxoo moo tax teel nanoo yuqeelu fële nga xam ne moo nekk ca ndakaaru critique yëglekaay moom ñëwul ci critique waaye dafa ñëw ci li nga xam ne mooy diggante échec ak mort loolee daanaka loolu la andi aw xëtam ci Idrissa Seck mi nga xam ne fi mu toll nii bu perte la nar a def ci lépp loo xam ne daanaka doon na ko liggéey ba ak si fii loolee nag daanaka politique la ndax politique moo demee noonu beneen yëglekaay di Walfadjri quotidien moom li nga xam ne fi a toll nii daanaka dernier pion bi nga xam ne moom la nar a poussé dernier pion boobee nag boo amul sens tëggal guyam la fi mu toll daanaka benn pion moo ko dese muy élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yi nag boo amul sens Macky xaw na ko cee xaañ aw daj woo xam ne fi mu toll nii pour mu fayu daj woowee du yomb benn yoon donte ñoom ñaar ñu ngi bokk benn terrain avocat Sonko yi nga xam ne ña ngay accuser li nga xam ne moo nekk parquet bi moo nekk ci yëglikaay boobee la mandat yëglikaay tamit ñëw di Idrissa ki nga xam ne président Macky Sall moom mi nga xam ne daanaka fi mu toll nii ak demam ca élection yi loolee kenn mënatu ci dara loolu bokk na ci li nga xam ne mooy yëglikaay bi la solo moom li mu ñëw ci Mbaye Cissé mi xam ne ah, fi mu toll nii moo jiite li nga xam ne mooy état major bu armée Sénégal loolee tamit yëglikaay bi andi na ki nga xam ne mooy Mbaye ba pare ah, Serigne Mbaye mu daal di koy gëstu defal leen ci yoo xam ne ay jaar-jaaram ba fii mu agsi ba nu jox ko lu rëy lii loolee bu ngeen yëree yëglikaay bii di la soley ah, da ngeen ci mën a xam lu baree bari loo xam ne mosul leen koo xam ci kilifa googee préparation corté bi ak pak bi moom la ki nga xam ne mooy tribune yëglekaay ñëw dafa romb jafe-jafe yi nag jiima ma indi yi euh, pexe yoo xam ne noonu lan mën a def ba corté euh, def seen pak ci jàmm loolee nga xam ne euh, journalu Bougane Gueye Dany bi moom la indi ci xëta mu njëkk a jërë ngeen jëf yëglekaay yi am na solo yeneen information ci kanam